Leewtoo TV eh. ma i moof na boongi ma gel waar we mbada njaayo e eh. Leewtoo TV eh. ma i moof na boongi ma gel waar we mbada njaayo e ñi ngi leen di bëggee bu baax a baax di leen ñaanal jàmm ak salaam tey jii nag ñi ngi fii ci euh, Fass ñi ngi toog ak Serigne jaay numéro 2 champion maa lay la ziar. mbaa yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi sant ngeen jëm ci combat bu mag seen diggante ak Abdou Diouf Abdou juuf jiitu leen ci làmb ba pare am fu mu jaar ak yéen nu ngeen koy waajale ah, waaw comme dam ci dëkk rek du ñaan yàlla dafa ko ndam ndam ñëpp ak suñu ndam Mohamed. Hmm. nu ngeen waajee combat bi par rapport ak yeneen combat yi jàll parce que xam nañ ne combat bi bokk ak yeneen combat yi ngeen doon bëre. waaw ah, xale moom bu waaj combat moom combat bu mu am tey buy topp mooy gën a métti te gis xale la. donc sa combat day gën a métti préparation day gën a métti waaw di ko ñaan yàlla dafa ko ndam rek incha allah. yow kañ nga mujjee gis Gris 2. ba kii dem noo ko gisee ban état ko gisee. comme d'habitude ah macha allah naka ngeen ko waajalee léegi combat bi lan ngeen di yóbbu bëre ngeen di yóbbu wala xeex. alors ah, moom lu nekk lu ñuy wax ci ay caméra ay télé nañ pare nañ ñaan yàlla dafa ñu ndam daal dëgg yàlla. wax naa ko sànq junj naa ko sànq ci biir wax ñu gis ne ki nga xam ne moom mooy Abdou juuf dafa bëre ak Gris Bordeaux numéro un euh, am ci moom ndam ba war a bëre ak Gris Bordeaux numéro de est-ce que lool du nekk pression ci champion. waaw ah, xale boobu pression ay xale lañ nag làmb xale koy def te lépp xale koy def pression romb nañu yàgg di dem. da nga bëgg wax ne ki ngeen di bëreel du xale. non du xale du xale moo ñu mag même bu dee cinq ans six ans moo ñu ko magee dox ñu moom mënu ko dékku. Mm. est-ce que loolu mu leen magee du leen ko ëppalee. non non non sport xale koy def làmb xale koy def. làmb xale koy def. kon ñu mën a xaar combat bu neex Abdou Diouf ak Gris. ah waaw si combat bu neex di ko ñaan ndam lu gaaw ndam lu gaaw ndam lu sedd guy ak Seydina Mohamed. Mm-hmm. yow ñu gëj la gis fan nga toll yow Serigne Ndiaye 2 ñu ngi lay gis ci mbapat yi yaa ngi dugg ci mbapat yi di yëngal di jël li nga xamante ne bii moom mooy ay drapeau barki dee ma nga jógee fan jël fa ñaare oto. Foundiougne ah. xanaa benn bi man nga koy jox. Ah, loolu dara. loolu dara. soolul. non dara. kon su may dem yóbbaale benn bi. ah incha allah yóbbaale benn <laughs> nag promoteur yi toll ci yow. non am naa commande depuis daaw ma ne soog a sim. mooy li pare maa ngi dégg gars dat quoi. Hmm. waaw mais mooy loolu maintenant maa ngi sama entraînement nekk si li nekk. yow ak soog a sim waaw déglu na kan moo ko tëgg. Habib Lecran. Habib Lecran. borom Lecran. Euh, ban date la jàpp. xaw ma maa ngi dégg yàlla jàppante date bi xaw ma nag. nga ci am. man kay dégg man naa ah, yàgg nañ ko jàpp. dafa début février daaw ah. su ma ko 21 juin na un an hmm. Hmm. nekk ci mbapat yi ba yow li nga xam ne moom mooy arène mais tamit yaa ngi ci mbapat yi. waaw compétition rek compétition rek compétition soo nawle yi ma nekkal ci mbapat tamit bu baax. Hmm. di leen nuyu di leen xam nga. di nuyu itam suma équipe bu baax waa équipe Fass. sumay entraîneur ak suma dëkk waa Ndiakhate ak maintenant gi ma juddoo yorof mag yëf ak waa Golf ak waa Ndar xam nga di nuyu ñëpp di sant suma gars yi may jàppale bu baax a baax yoo xam ne nii saa lu métti na dañuy toog ñu bàyyi di leen jaajëf bu baax di suma président équipe Père Bass Ndoye suma papa Tafa Gueye di leen ñaanal jàmm quoi. ren ñaata drapeau nga jëlagum. man xaw ma ne ko. calculé woo li nga jël. damay hmm. compétir rek xaw ma sax yàlla xam na loolu. Ah, mais Zambio xam nga li nga jël. non xaw ma damay compétir rek damay compétir rek. kan nga mujjee bëreel ci Mbapat euh, fi nga jëlee ñaari oto yi kan nga dajal final. Euh, Doudou Sané. Doudou Sané ñaata yoon ngeen bëre. incha allah loolu garaaw mooy la mbër maa lay bëgg baax dina <laughs> mais mais mais mais mënoo maa wax yoon ngeen bëre. non garaaw yooyu amul solo ay ñaari ngeen bëri amul solo moom vraiment waaw. Ah. mais ñu gis benn ñu gis Serigne jaay ba nga xamante ne bii bu nekkee ci Mbapat beneen Serigne Ndiaye la ñuy gis xabtal bi ak li nga xamante ne bii mooy affaire yu xonq yooyu muy takk ci bopp bi. loolu dara làmb la rek dañuy compétir waaye kenn mënul kenn fii si moom ku mu dimbale moo fi ne n'est-ce pas di nuyu sama gars yi bu baax comme ni nga ko waxee rek dinañ jaajëfal ñoom ñëpp xam ne compétition la rek benn deux heures temps trois heures temps moo ñu boole après bu jeexee jeex na xam nga di leen nuyu di leen jégaluwaat bu baax a baax daal képp suma adversaire bu ma dajal rek maa ngi jégalu bu baax ñi naan ñëpp am jàmm daal vraiment bëre mbapat ak bëre bëre arène ban moo gën a metti non mbapat métti na quoi parce que arène moom xuuy xam nga day yombal lu bari quoi mais mbapat ponkal mu sëgg xam nga amul dóor amul dara nga def sa ay pexe ba tëral ko suuf dafa xaw a métti quoi ci la ñuy gisee technique pure quoi ki mën ki dàq bëre ci lañ koy xamee. waaw dëgg la moom dëgg la waaw. ñu gis nga ciy jàkk nga ciy daje ak ay champion parce que man topp naa la ci àll bi. tout récemment bi Yékini tëggee ca ñaaxar maa ngi fa woon ak yeneen mbappat ya nga xamante ne bi dañ fay fekkante nga fay daje ak ay champion ya nga xamante ne bi ci bëre simple bi la ñuy la ñuy la ñuy bëre mën nañ ci jàpp ay caaka fay mën nañ ci jàpp ay Toubacouta mën nañ ci jàpp ay Ibou Ndiaye Obali ñooñu sa diggante ak ñoom waaw ah, mais compétition la rek affaire moom compétition la rek li ma wax rek kenn mënul kenn xam nga suñu euh, jël day ñëw day yomb si yow mais lan moo tax Serigne Ndiaye bëreem di gaaw waaw ah, mais dara dañuy compété rek. wala da ngaa wóolu sa bopp da ngaa wóolu sa doole. waaw ah, mais xare lañ nag. boo nekkee xare yàlla sutura la nga ay coach yu si yoon boo ñëwee da ngay appliqué rek. Mhm. loolu kese dina taxaw mayewul ndam quoi da bëri taxawul may ndam quoi. da ngay ñëw rek def li nga war a def quoi. man gëmuma ay taxaw damay ñëw appliqué quoi loolu laa gëm. Euh, mën xam exact lan moo la poussé ba nga dugg ci bëri simple bi. non compétition rek di entraîner di xaar benn combat par an amul sens quoi amul solo. te ñun dañuy entraîner du au jour dañuy entraîner nga dem compétir si arène bi comme su mbapat na bu wax ne mbapat day yokk xam-xamu mbër. day yokk xam-xam day yokk. day yokk lépp daal. day dimbali daal. kon sa nawla yi nekk ci làmb ci te duñu bëri mbappat loo leen wax. ah xanaa ñu wàcc day dimbali parce que bu ñu bu ñu nee sportif moom war di nga am dugal sa poche di nga am compétition tey tey da ngay dem tey tey. parce que yu chaque jour ay 7 combats 6 combats donc beneen combat war la mun jaaxal kii loolu kese la Euh, buñ duggaatee ci li nga xam ne moom mooy mbapat bi bëre simple bi euh, ban jël nga ci mës a daanu mu metti la ba nga xam ne fàtte woo ko. non am gu ma wax dëgg yàlla rek commission laa jàppee wax ah, ñàkkul nga bëre ci ak sa ak ba lamb ba nga xamante ne bii daan daan nañ la ci mu leer la ne euh, combat bi ba léegi metti na la. waaw mais commission la rek commission la rek. booy compétit moom mooy leer sama lu ko waaw. ay xale dañuy daanante rek ay xale ñëpp ay xale lañ. dañuy daanante rek vraiment. mais ñu mais gis nañ xam na ne yéen ñëpp ay xale ngeen mais ñu gis ci yow wax naa la ko sànq benn façon bu bëre ba nga xamante ne bii bu bu bu bu gaaw la mais tamit ak ak dëbb naax bi ngay dëbb naax gars yi di leen bal dóor yu bal yooyu noonu lan la. luy bal dëbb naax. luy yi nga leen di door fii di <laughs> affaire yooyu. ah ngadd ah man ah, ngadd si la ma la bokk mooy lu métti la ci bëre simple nag. ah mais c'est normal lamb la. moom dañu may ngadd des fois ba damay miir wala ma ñibbi des fois bëgg lekk ma tëmma. des nga jëm dem ba pat ñi bii bëgg lekk mu tëla waaw oui c'est normal parce ay ponk nga dee tamit ay cent quarante kilos cent vingt cinq kilos xam nga loolu yombul quoi nga am ci benn combat ñaari combat sept combat daw gauche daw droite yëngal gauche yëngal droite donc day nekk loo xam ne tey c'est boo tëddee nga am ay quelques assiettes sa yaram quoi waaw mais ça va loolu kese la mais ngàdd bi ngàdd ñu pour dara wax dëgg yàlla nekkul ngàdd pour néewal doole ñi ngay bëri non non non parce que maa d'ailleurs d'ailleurs suñu baax Mass Maga dafa dafa benn sortie boo xam ne tey man na ma yàlla jégal ak gars yi man xam wax ci ngàdd yi ngàdd yi parce que ne damay dóor mbëri avant bara laa leen dóor man yaakaar naa ku ma daf kenn lu soxor wala daf kenn lu ñëw awma intérêt boobu vraiment compétition moo ñu boole boo xoolee mbër yëpp maa ci gën a sportif donc may daan ma jug dem ma daan la jug la agité la félicité la def suma yoon arbitre def loolu yoon du ma dem table du ma kaas jël naa sama bagage ñibbi naa suma yoon man noonu laay compétir fu ma toll ba ma dalee compétir ba léegi kenn mosul dégg ñu ne Serigne Ndiaye moo ñëw yàq làmb wala làmb amul ci àdduna waaw te yaakaar naa boo xam franchement mosuñu daje fenn ñu ne làmb ci ci yow la yàq dëgg te boo xam ne daj naa ci lu ne mooy lépp damay ànd rek suñu borom fii la ma yemale ma dem ci respect si yar ak teggin parce que ay même wul dara ay kilifa ñoo ngi seetaan xam nga donc moom mooy war a benn affaire indiscipline donc su fekkee dama ngànt nit moom ay problème xam nga du sama tayam du sama dara lamb rek moo ñu boole xam ne sportif lañ rek wax dëgg bu ñuy fo ay bu jeexee rek ñu nekk ci leneen tamit booy ñëw ci mbapat dafa am paa àndal wala paa booy àndal. loolu daal la rek. lamb la rek mais lamb mais tamit euh, bon mën nañ xam pourquoi. non mais lamb lamb la compétition la dara tey tey Serigne Ndiaye tey buy génn tey ay kilifa koy topp xam nga tey. ndam dafa neex te làmb tey xam nga xaalis lañ teg teguñu ay teguñu ay ay ay xobu garab ak yooyu xaalis lañ teg xam nga liggéey la quoi vraiment comme liggéey la nag dañ ciy farlu def si sa fulaa fay na xam ne ay kilifa ñoo seetaan ay kilifa ñoo lay supporté parce que amul lu samay supporter xam nga sama supporter moo tax may reyante moo tax ma ci ay coono te man dama dama ragal defet dama yàlla jégal ma ñëw ma def bëgguma ko xam moo tax damay fekke tout tout rek ma yàlla dama sutura saa fu ma nekk rek yàlla dama defal ndam quoi vraiment ay ceeb kàddu gu mujj gi lan la lan ngay wax waa Leewtoo ak euh, internet yi ñuy seetaan waaw ah di leen nuyu rek di leen siyaar bu baax di nuyu sama mbokk séeréer bu baax a baax di nuyu ñëpp suma dëkk waa Ndiaffate séeréer Ndiaffate Escale Ndiaffate Bërut ak Ndiaffate Socé xam nga di nuyu suma gaay di nuyu suma meeru dëkk muy Assou Ndiaye xam nga parce que jàppal si baax a baax baax. Leewtoo TV maa i moof na boo ngi gel waar we mbada njaayo Leewtoo